Euh, exemple Macky Sall yi mooy ñan Youssou Ndour moy héros Macky Sall bo len xolé tay Sénégal héros Macky Sall numéro un moy kan moy waaji nga xamné c'est le plus grand criminel du Sénégal du fay taxe du xaritoog kuy fay taxe du xaritoog kuy avancer kuy avancer mu fagagal. la des musiciens, musicien bo ñewul dugg ci label Youssou Ndour dina fexé ba nga daan barki dem boo njaay a ngi xol Bouba Ndour ci plaisirisme. bi ci affaire fallu Dieng bi barki dem boo sénégalais yépp a ngi koy dégg loolu ngeen di mun mulee ci dëkk bi noonu Bouba Ndour kañ la daan live ci ay oto laay bu oto Fallou Dieng lañ ko xamee wala Ousmane Tounkara Bouba Ndour kañ la daan live ci ay biir oto kenn mësu koo gis Bouba Ndour léegi nee na toog na si seen jàkkaarloo boobu defe naa pencu mi la xaw ma jàkkaarloo la xaw ma lu mu doon kenn xoolatu leen parce que ñépp xam nañ ne ay fumiste lañu ay fen rek lañ fa nekkee we all know xam nañ ne ñépp xam nañ ni ay tappet lañ

there is nothing they can do toujours copie coller rek boo leen ko xoolee même ci ay musique am répétition rek tey bu répété bii bu ko tëggee mën na ko tëggaat téeméeri yoon reprise reprise reprise reprise reprise xam nga boo ko waxee ñu bari ndeysaan dañ ma ne ndax kii da nga am euh, euh, problème ak moom personnellement déedéet Sénégal la amal problème parce que xam nga Sénégal ñun suñu taxe yooyu muy sàcc moo war a fayal suñu tali yi moo war a defaral suñu école doom yi moo war a defar suñu hôpitaux yi ku nekk citoyen bu nekk ci àdduna bi dañ ci war a def sa wàll citoyen sénégalais bu ne danga war a fay impôt Sénégal le pauvre mais baana baana bi nekk ci mbedd bi day fay impôt Youssou Ndour du fay impôt baana baana bi nekk ci mbedd bi day fay impôt parce que xam nga conflit d'intérêt yu mel noonu day yàq dëkk kaay waxal ma li ma bëgg kaay defal ma li ma bëgg nga bañ a fay impôt loolu day delloo réew ginnaaw Youssou Ndour ñiy delloo Sénégal ginnaaw ci la bokk maa ngi leen di jox exemple bi keroog nee leen boo ñëwee dëkk bu mel ni Amérique Amérique mën ngaa sàcc cent milliards doomu aadama sa diggante la ak doomu aadama boobu boo sàccoon cinq centimes impôt dañ lay yóbbu kaso cinq minutes ngay def nga dem kaso amul exception muy président de la république muy keneen ak keneen ma wax leen nag impôt am na ay loi par exemple tey xam naa ñu bari bu ma waxee loolu dinañu ne euh, seen président Amérique bi sax am na ay waaw am na ay loi yaa a des parce que fii déjà bu ñuy tracer loi dañ koy teg ñu leeral ko tey boo tabaxee kër goo xam ne boo tabaxee société man nga cee man nga euh, employé ci ay doomu aadama man nga koo wàññi ci sa ay impôt yooyu yëpp am na mais mënuloo tey nga mel ni Youssou Ndour nekk Sénégal am lu mel ni TFM ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndeysaan di enjoy neexaayu Sénégal Youssou nduur woy na Ablaye Wade woy na sengoor woy na Macky Sall woy na Abdou Diouf Youssou Ndour ku ñëw mu ànd ak yow pour benn intérêt rek mooy lan bañ a fay impôt Sénégal Youssou Ndour ak buuba nduur sénégalais yi s'il xam leen ne ñooñu duñu exemple boleh len ñuy wax exemple gis ngeen exemple yu bax yi gisoon ngeen fi ku tud ku melni Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass gisoon ngeen ko fi waxuma len Ahmed Khalifa Niass te ngeen ngeen jéggal buguma dugg ci ay ñaari affaire yu différent Sidi Lamine Niass la len wax ku yoron télévision Sénégal nek exemple ñep bi Ablaye wad ñowé Ablaye wad wàññil borom télé yep impôt mu top ci loi bobu bi Macky Sall lan la def comme kooku andul ak moom bokkuñu ay idée lu mu def mu retourner waat ne ko de kële lépp fi tegoon dindi na lépp léegi dañuy delluwaat ba ci ginnaaw lool Macky Sall ku wax lu ko neexul sax mu créer la ay yu mais suñu malaka bi Youssou Ndour mom mom dafa set witch Youssou le plus propre du Sénégal xam nga loolu moy loolu mo bon ci ci histoire du Sénégal la personne la plus sale du pays momo moy la personne tay, mo xamne yeen ñu bari ci yeen mom ngeen di décorer parce que lan parce que ay musique musique am neex nga mën ngeen cee yëngal mbàgg nañu moytu de nañu ragal xam ne dee dina ñëw te boo nee dee dina ñëw mooy ñun ñëpp dinañu am suñu jour we all gonna have our day ñun ñëpp dinañu am suñu jour nit boo koy bëgg bëggee ko ay qualité du ay baat yu neex wala saag bu diis loolu du qualité déedéet loolu intérêt la il faut nous intérêt personnel Nous ñu intérêt Sénégal parce que intérêt Sénégal moi am njariñ intérêt personnel c'est yow dong lay intérêt personnel yi ngay dong que les Sénégalais le savent ou pas il faut il faut nous nous suñu nous nous nous nous, nous nous nous nous ñu nous nous nous nous dem nous, ak c'est un problème pour le pays Macky Sall il faut ñu jëlee ko fa tant que jëlewuñu ko fa Macky Sall boo faqattiwul ay loxoom génne ko ci palais boobu du fa génn Macky Sall jàmm du ko génne ci palais boobu ngeen def ko léegi nag mu metti moo gën ñu xaar ba xam parce que day metti de day metti de il faut savoir que Macky Sall fi ñu jëmee Macky Sall ñu dina metti de